gërëm leen sant leen si ànd bi ngeen di ànd ak ñun ne si actu TV delluwaat nañ tey ji si seen i entretien série d' entretien yi ñuy amal semaine bu jot euh, tey tamit wàccaat nañ si langue politique bi war a waxtaanee wàllum politique situation bi xam nga ñoo ngi ñuy wax gouvernement d'union nationale waaw loolu yëpp war nañ ci waxtaan waaye tamit war nañ wax ci société bi société bi surtout yenn dëkk yoo xamante ni inondation yi def leen laal bu baax a baax lu ci mel ni Touba Touba foofu sax la ñuy des moo tax tey ñuy dalal ki nga xamante ni moom moo nekk honorable député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk député euh, bokk ci parti bi di bokk gis-gis jiite coordination départementale bu Mbacké alors honorable nuyu nañ la di la ziar aussi Euh, maa ngi leen di fay maa ngi am mbégte bu baax ci dalal leen ci fii nga xamante ne mooy suñu kër. Mm-hmm. Euh, di am rafetlu trop ci émission bi di rafetlu aussi taxawaayu Dakar ak Dakar TV ci liggéey bi muy liggéey euh, pour population muy information yoo xamante ni yu gaaw lay doon yu wér lay doon yu dëgg lay doon. Mm-hmm. kooku ñu ngi leen sant di aussi tamit di jaajëfal askan wi yëpp ci li nga xamante ni mooy taxawaay bi nga am nañu ko. Euh, di ndokkeel tamit jullit yi ci li nga xam moom la ñu génn di ñaanal xalifa général des mourides sama borom may ko fan bu gudd ak wér mhm. ak mboolem njabootu islam gi ak euh, sëriñ suñu waaju sëriñ Babacar mhm. si xalifa général di Tidiane merci alors honorable may rappeler tamit euh, religieux nga waaw bokk ci famille bi alors honorable géej nga Touba non Touba du ma fa tubaa Touba moom fa laa dëkk daanaka. Mm. Euh, fi bërëbu liggéeyukaay la rek mais weekend bu nekk maa ngi fa laa julee àjjuma def fa samedi dimanche. Mm. ñëwaat après pour continuer njaboot gaa ngi Touba. Mm-hmm. njaboot jaa ngi Touba mm-hmm. alors Touba ñu des fa rek yéen a ngi dund situation yoo xamante ni dégg nañ ko fu nekk euh, si biir Sénégal mooy situation inondation yi nga xamante ni moom moo am jamono ji ca dëkk bu sell ba alors nan nga koy dundee en tant que autorité responsable politique mais également religieux. waaw xam nga Touba moom dafa am loo xamante ni demoon na depuis 2012 ba léegi. Mhm. benn situation bu fa am boo xamante ni kenn xamul situation bi nu mel mooy. Euh, bu fekkente ni mbirum inondation bi dafa yokk ndax ko ne xam na ni taw bi li mu taw léegi daaw ko taw bu njëkk. Mhm. Euh, ba pare amul benn matuwaay boo xamante ni muy état bi nga xamante ne mooy nguur gi ak ñi nga ñooy nekk foofu muy euh, commune bi. ay responsable yu jël pour que mëna a lolu ndax japp na ni bu fekké na nga fi nek juroom ñaari at at mu jot nga gis nawet bi ni muy gëna ñëwé war nga def ab jàngat chamar wané ni kat li nga xamanteni tay ji mo am légui bu passé bala at amat nan lay mëna def ba nga xamanteni lolu dina ko mëna a même bu fekkee mënu ma saafara mhm. mais tay ji depuis 2012 ba légui ni problème bi doon am Touba ba fi may waxee moy continuer di am ci même lieu bi lay doon mooy inondation mooy inondation yi hmm. yaakaar naa ni kon loolu amul ba volontaire politiquement boo xamante ni état bi am na ko maire bi tamit am na ko hmm. ndax tey jii boo demee tey maire yi ci buntu maire bi hmm. kenn mënu fa dugg ndax day ta te jëm juróom-ñaari at ba léegi mais xanaa mënoo ni juróom-ñaari at yi war naa def loo xamante ni tey fenn fi ma nekk sax war naa ko maa defar mais ku mun munti defar sa bopp doo maa defaral ñeneen ñi kon da jàpp ne euh, dafa am benn négligence du côté waaw xam nga euh, yi wala laa ko jàpp mooy incompétence amuñu xam moo bi rëyut incompétence laa ko jàppe ah xamuñu amuñu xam-xam amuñu matuwaay xam-xam boo xamante ni tey war nañ si sukkandiku hmm. pour que mën a saafara loolu mais ku amul xam-xam dina jiite honorable non mais kan moo ko jiital d'accord kan moo ko jiital du population bee ko jiital hmm. faluñu ko danga ko tànn ki ko tànn nag mooy xalifa général des mourides moo jox maanaam rakkam ni ko dëkk baa ngi noonu rakkam Serigne Sidi tànn ab taalibeem teg ko fa mais tegu ko fa ci xam-xam tegu ko fa loo xamante ne population bi ànd nañ si ndax tey bu élection amee moom gañewul bulletin blanc moo fa gañe woon ñu ngi ñaan sëñ Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla yàggal te wér euh, yàlla na ko yàlla yokk ay leer. Mhm. moom mooy ki nga xamante ni tey euh, moo fi nekkoon jamono boobu. bulletin blanc bi man maay ki ko porté woon ni nañu wote bulletin blanc Abdoulaye Ka moo yore woon liste APR ndax man mii di wax ak yow. Mhm. dañu ma dugaloon ci list bi wane ni comme maanaam man waroon naa bokk ci kàngami Touba yi nga xam war nañ bokk ci ñiy doxal commune bi. Mhm. Abdou Lahad Ka génn ma ci si boobu noonu ak Moustapha Cissé Lo ma porte bulletin blanc bi au niveau du Touba gagné ko hmm. muy wat contre bi hmm. tey bu fekkoon ne dañuy fale ay xob du hmm. nekk maire loolu mooy li am léegi nag li am am na incha allah am na ay saafara yoo xamante ni mi ngi feeñ te bu neexee yàlla bu élection amaatee moom mi nekk maire bu duñ ko tànnaat ndax li nga xamante ne mooy action yu Touba si kanam di doxal tey pourquoi pas waruñu ma jël teg ma si kanam ma yore maire bi wala ñu jël koo xamante ni le leader de Touba ci kanam muy Serigne Abibou teg ko ci kanam jël ñun ñi nga xamante ni maanaam am nañu compétence nekk na fa askan wi ñu taxaw ànd ak moom jàppale ko pour toi mën a sensé honorable yow yaa ngi dugg si campagne te campagne jotagul non loolu campagne dama la fekk si si débat campagne agul duñu euh, parce que yaa ngi wax ñu teg la ci mairie bi euh, te voilà euh, campagne jotagul alors honorable li li am noo ko euh, yow wax nga euh, peut-être euh, manque de connaissances. là. mais est-ce que nekkul manque de volonté politique de la part du gouvernement ñu bañ koo impacter justement ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk mairie bi ak autorité locale yi. xam nga. Hmm. état Sénégal moom ci nguuru Macky Sall. Hmm. Touba yaakaaru dara. ah bon loolu rëy na. ndax le président bi nga xamante ne hmm. amul benn ambition. loo xamante ne pare na pour defe ko waa Touba. ndax ñoom daf leen a jàppe ay noon ak projet yu muy wax yëpp. moom def Touba Macky Sall pour hmm. moom Touba mooy premier noonam. ndax ah. mel moom mooy président de la République ne nekk nga ba nar a jóge fi mosoo gagné doon na gagné Touba. Hmm. du te du jullit. Abdou Diouf doon na gagné Touba du murit. dëgg Abdoulaye Wade doon na gagné Touba ba ni fi jógee. Macky Sall mooy ki nga xamante ni moom moo fi nekk musul gagné Touba li tax musul gagné Touba nag. moom ay jàngalu yoo xamante ne daf ko war a xam jàngat ko pour que mën a sensé mais bu fekkee dafa ko bëgg a faje nii Touba ay citoyen ngeen ginnaaw dakaar yéen fi ëpp économiquement ak population mais du ma leen defal dara ndax woteelu leen ma kooku bu ko defee dafay nax boppam ndax Touba dafa nekk titre foncier Serigne Touba moo ko moom taalibe ya fa nekk dañoo ñëw fekk ci Serigne bi di jël seen alal di investir si dëkk ba bu fekkee état dëngu fa def ñoom si seen bopp ña nga fay def loo xamante ne tey état moo ko doon def ndax mu lay jox ay jàngare mooy xoolal euh, viraliste yi nga dégg maanaam ñaa modernisation viraliste yi nga xam ñu ngi leen tabaxal tey ay lii tabaxal est-ce que gis nga état def ko Touba conférence ay mais euh, état def ko Touba ndax li tax mooy Touba soxlawuñu ko dèjà fekk na ñu ñu def ko mhm. ndax tey bu fekkente ku si mel ni man la bu ma sëriñ bi nee ma tabaxal ma benn salle de conférence bu 600 millions mais dina ko tabax si moyen de 3 mois wala 4 mois doo xaar duma xaar. ndax Serigne Touba jox na ma lu ma ko mën a defee te taalibe laa te Serigne Touba moo ma gënal sama alal moo ma gënal sama bakkan kon ñun Touba foofu la ñu toll. kon moo tax que état amul dara loo xamante ni tey lu man a jël santage la pour santage waa Touba. ba fekkente ni mbirum éclairage public yi Touba ma nga fay def la mu fa war a def Touba ci kanam mi nga liggéey bu dee mbirum assainissement Touba jël sëriñ bi jox na ndigal. ki nga xamante ne mooy Touba ci kanam. ba tax na def na ay contribution yu am solo presque mooy de deux jours ñu dajale un milliard. yaakaar naa ni ku dul Mouridi ku dul Touba mënu ko. loolu moo tax que ñun ñëpp kon kon ko dugaloon ci seen loxo ba man mii dugaloon naa sama sama loxo ci tàmbali bi. loolu moo lay wane la am na fu ñu jëm fi ñu jëm nag mooy. fexe Touba ñun ñu seeral ko suñu bopp. yoral ko suñu bopp lépp loo xam moo farte état def ko ñu def ko suñu bopp bañ ko xaar si dara. est-ce que loolu ça veut dire que pare pour euh, écarter maire bi fi nekk génnee ko si affaire. non maire moom moom maire moom euh, hmm. génn na bopp dessin. Ah, génne na boppam génne na boppam ndeysaan ndax maire boo xamante ni tey euh, amulool njariñ sa population hmm. amulool njariñ sa askan hmm. dëkk ba faluñu la kooku yaakaar naa ni pour nga démissionner ci maire bi sax dafa war a yomb tey bu fekkoonte ni tey am na ngor mm-hmm. wala am na lu muy bëgg tey warul continuer sax di yori maire bi mm-hmm. ndax yaakaar naa ni business moo ko gënal tey euh, mu continuer di liggéeyal sëriñ bi ndax euh, bi ñu mm-hmm. mooy ëpp doole parti d'accord est-ce que yow ça veut dire ma ñëw fekk si la rek si li nga doon wax wax tout à l'heure est-ce que taxaw nga tey ngir nekk candidat mairie bu Touba. waaw wax naa ne xalif général de Mouride xam nga xalif général de Mouride. Euh, waxtaan nga ko moom waxtaan naa seeg moom. Hmm. waxtaan naa moom euh, wax na ma euh, lu daal sama xel. xamal na ma ne bu ban àgg seeg jàmm te incha allah gis na sama liggéey gis na sama taxawaay ak yéen bi ma am pour accompagner ko si liggéey Sëriñ Tuubaa ndax xalifa bi. Hmm. daf ma jàngal. dafa ma yar moom la ma joxoon mu yóbbu ma daar mu leen Saalum sama waajur la kooku ñeewantel bi ma am pour jàppale ko ci liggéey si Ahmadou Bamba ak projet yi nga xam ne moom laa yor mhm. yaakaar naa ni moom bu ma joxee maire bi dinaa gën a feeñal liggéeyub sëriñ bi ci biir dëkk ba mhm. mais ki fa nekk daf koy euh, tardel liggéey boobu noonu euh, du avance li nga xamante ni tey jii mooy bëgg-bëggu sëriñ bi ci population bi mooy tey boo demee ci sancaan yi tey amul éclairage public amul amul amul amul amul adduction d'eau mm. amul assainissement dañoo sonn te loolu yaakaar naa ne sëriñ bi mënul def lépp kon bu fekkoonte ne maire bi taxaw na taxawaay bi a taxaw chaque jour que mu nekk ci kanamu sëriñ bi mm. laaj ko lu mu bëgg euh, mu wax ko population bi xam ne lii bëgg-bëggu sëriñ bi mu def loolu mm. yaakaar naa tey fi ñu toll duñu fa toll tey incha allah nekk dinaa nekk candidat maire dinaa nekk candidat conseil départemental bu Touba bu tubaa bu Mbacké kon daal fu mu nekk nii bataille politique yi am Touba yëpp Euh, non man maay leadership seul bu nekk département Mbacké boo xamante ne ni tey lu ma laaj ñu jox ma ko. ah bon wóolu sa bopp ah. ah guñ foofu sax. non non non non maanaam hmm. population Touba dafa am lu ñuy dunde mooy li ñuy dundee mooy koo xamante ni yaa ngi leen di jariñ. Hmm. nekkal leen nekk ci seen wet taxawu leen nekku taalibe gëm see Ahmadou Bamba. Hmm. bañ a ferse état bi. ndax état boo xam ne dafa contre sëñ Touba boo faree sama da ngaa contre sëñ Touba man noonu laa gisee te man anduma ak état. moo tax tey am na sama benn doom bàjjan bu doon wax mu ni moom day xaar ndigalu Macky Sall pour nekk candidat man du ma xaar ndigalu kenn man candidat laay doon conseil département muy Abdou Bali moom tey APR la gën a jege APR la nekk tey ministre APR la APR lay liggéeyal kon jàpp naa ne tey ji liggéeyu Touba ni mu gën a sooxe yépp tey ji bokk na si ñoom ñi nga xamante ne dañoo waroon taxawal sëriñ bi di taxawal APR di laaj ndigalul APR pour que nekk dara yaakaar naa loolu ñaaw na trop ci waxin bi. Hmm. pour man yaakaar naa ne wu sëriñ sëriñ Tuubaa warul xaal ndigalul Macky Sall pour ku mën a yor li mu war a yore. Hmm. moo tax man incha allah dinaa samp sama euh, euh, sama ndënd. Hmm. pour yor conseil département bi te bu ma ko laajee daan ma ko jox ndax ñett ñaari misaal la ma jox. mooy première misaal mooy. pour ma nekk député population Tivaouane ñoo ma fal. bi ma falee ci liste laa demee woon Ablaye Wade nekkul élection deux mille deux liste bi ma jiite woon. Hmm. man maa nekkoon coordonnateur liste boobu noonu muy liste coalition Iddi bi. Hmm. Iddi mus gañu Touba. te àndoon ak Khalifa Sall ànd ak ku man di doon kàngam yëpp. Hmm. te toon ma am 8000 voix Touba. man mu jël ma jiital ma ma am ma jox ko cent voix mille niveau de Touba te boobu Ablaye Wade demul élection. Idrissa Seck waa Touba xamuñu ko kon kenn xam mooy ki nekk si kanam. ma génn 30 millions ak fukki oto pour campagnal ko. gañu Touba jox ko li ma ko jox. man buma de Touba ni jox len ma département ma défarat département mais de jox maire bako jox dal jox. kon li nga la def ko hmm. tant que ngi Touba tamit sama may du ah oui oui. D'accord. mom bu Touba ma Touba. alors y'a wax y'a wax euh, sa ambition pour Touba. Euh, problème assainissement bi ñu gis fa mel ba euh, ki nga le porte parole euh, di Khalif général des Mourides de def ci sortie bu am solo no jangate lool d'abord surtout. wa ni ko que dama and ak 100 ci limu wax en tant que Cheikh mais dama and ak en tant que le porte parole. ndax man limu yor en tant que aussi wala. wa hmm. xam nga xam nga xam hmm. nga mais ñun dañuy xol hmm. kaddu yoonu ba tax na institution la boo xamante ni tey ku laal Serigne Touba. moom nga laal ndax li mu yor Serigne Touba ka ko jox man foofu laay xoole ba tax na lépp loo xamante ni wax na ko ci lu jëmal Touba lu koy defar. am naa seen moom cent pour cent. moo tax dafa nekk ñi nga xam dañuy jàppale Macky Sall sax waruñu sax di xaar Cheikh Bass naa leen bu ngeen def Touba di leen informer ñi nga xam ñoom ngeen war a defal ndaxte imaginel tey jii. Mhm. kooku noonu muy le directeur de ONAS. yow man nga tabax defal benn projet au xamuñu projet bi ñun ñi ay député lañ di représenter peuple bi war a taxaw nationale mhm. di wax li nga xamante ni moom la état def Sénégal ak li mu fa deful ñun du ñu yëg projet boobu ñoom bu ñu fay dem sax du ñu tànn du ñu wax ak ñun te ñun ñu war rendre compte population bi mais xam nga ni kon moo lay waneel seen projet yi baaxul problème coordination la mais problème coordination dañoo xamul dara xamul fi ñuy jaar ndax député tey dafa représenté peuple bi mhm. tey bu fekkee da ngay dem di di def dara mhm. war nga wax député ngeen leen kat lii maa ko a def nga invité leen sax même fekkente ni tey laajuloon say xalaat bu defee ñoom bu ñu gisee xam ne yow li nga def lu baax la a génn population bi kat lii ñu mhm. xalifu mën ko xam mais kenn xamul ñu bëgg a saax saaxaay bëgg ñëw maanaam jëlaat milliards yi sàcc xaalis boobu noonu kenn xamul lu ñu war a def mais loolu euh, duñ ko d'accord duñu bëgg a sàcc xaalis ba koo jaare si Touba duñ ko d' euh, nan lan nga jàpp tey moo mën a Touba euh, si difficulté yu mu nekk surtout euh, problème assainissement bi. waaw yoon bi ñu jaar mooy li sëriñ bi wax ni. Hmm. liggéeyub assainissement Touba dénk na ko Touba si kanam. Touba si kanam xam ne li ñu leen jox liggéey la boo xam liggéeyu sëriñ Touba la. Hmm. ñu bañ see soxla dara bañ soxla ndam loh xamante ne dañuy wane ni ndam la nekk ndamul tuba, Touba ndamul murid ñu ubbi seen buntu jël borom yi xam-xam yi nga xamanteni ni seen xam-xam màcc na ci lolu ñu fay leen ñu and ak ñom ci liggéey bobu noonu pour que ñu man ci am ndam. lolu moy li nga xam buñu ko fi ak at bi jeex ñu ag ci Touba daan gis ay saafara. mais du nek safra bo xamanteni rek ndox mi day ta ñu jël suuf sëkk ko fa. déwén mu melal noonu. dafa wara nek dafa wara nek manam bo xamanteni xamante dañuy jël par programme. at mi dina def nangami kilomètre. dina jël Touba ay tuwa assainissement yobbu ko batay ji Daaru Manaan hmm. foofu ndox deetu fa taa tey jii boo demee Daaru Manaan fi nga xam ne représentant chef l'état bi sax muy sous-préfet bi hmm. dañuy dagg vaa boobu noonu bi chaque nawet hmm. mais na loo xam ne lu xew euh, dugg si projet yi nga xamante ni mairie bi moo ko waroon ñu jox ko benn structure boo xamante ni waaw xam euh, a porté di ko jox maanaam koo xamante du mairie kon xam nga ni sëriñ bi xam na ni maire bi liggéeyut moo tax mu jëlee ko jox ko maanaam Touba si kanam. d'accord mbokk yi seetaan Dakar Actu euh, alors tey nag seen série d'entretien moo ngi dalal ki nga xamante ni moom moo nekk honorable député Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké nekk religieux dëkk ca Touba. alors honorable dañuy wax ci contexte bi ñu nekk mooy situation pandémie Covid 19 bi yow moom mu mel ni bokk nga ci sëriñ yi gën a ragal feebar bi. parce que gën nañ la waaw dama ragal feebar bi. Hmm. Euh, ndax li tax mooy yàlla subhanahu wa laa moo lay wax ne jàngoro bu amee na ngay daw foo xam ne boo fa demee ñu wàll la ko wala ngay daw ñi nga xam ne buñ ko buñ la boo leen gisee ñu wàll nga nga wàll leen ko mooy ñaari yëpp bu amee damay toog jàpp sama bopp sama kër bu may génn nag soxla li nga xamante ni moom la kër docteur yi digle ma gis xalifa général de Mouride yi nga xamante ni mooy mooy Serigne Mountakha def ko hmm. ma gis suñu waajur xalifa général de Tidiane def ko mooy damay takk sama masque yor sama sel sama oto bu mu demee du ma nuyu kenn bu la may war a dox jeexee ma doxaa ñibbisi bañ naa ko ba sama oto sax maa ko dawal sama bopp beneen oto bi chauffeur bee ko yore ndax loolu lépp lu koy waral mooy comme chauffeur bi dafay génn mhm. jaxasoo bi nga xam moom lay jaxasoo ak ñeneen ñi ak man ñi may jaxasoo te ay kilifa lay doon bëgguma aussi tamit vraiment yu am loo xamante daal dañ ma koy kee moo tax daal mm. matuwaay yëpp loo xam ne war naa ko jël dina ko jël ba pare na di ñaan yàlla subhanahu wa taala mbas mi bañ bañ ñoo dal ba pare ñim dal ñu may leen wér ba pare mu jóge ci réew mi d'accord nan nga gisee euh, nu ñu seere feebar bi autorité yi waaw seere bu bon benn bi mooy dañuy fen askan wi ah fen laa ko mën a tuddee ah mooy population dañuy fen population du leen wax dëgg hmm? xam nga xalifa saa de Mouride sax xalifa euh, saa Tijaan sax wax na leen ko mais li leen ko waxee hmm? bokkul man ni leen ko na man xam naa leen hmm? mooy ñoom du ñu wax askan wi dëgg nit ki na bëggul wax dëgg fen la fen nga koy mën a tuddee li xew ba nga xamante ne tàmbali naa xew la ma leen waxoon defuñu ko mooy tey jii may wax a yow lan defoon bu njëkk ba muy am ay ñaari ka ñetti ka mooy confinement état d'urgence heure bii la jote woon kon yaakaar naa ne dafa am mooy ñi nga xam ne boo leen di jiite doo leen di wax dëgg la nga leen di wax duñ ko mën a gëm te loolu moo ne si ñoom beneen bi mooy li nga xamante ne mooy li nu leen jox ci xaalis pour ko war ko séddale li nga xam ne ñoom ñoo ko war a séddale séddale bi ñu war a séddale jaarul yoon ndax ba fi may wax ak yow commission ñu taxawoon pour que ñoom ñu ñëw assemblée leeral loolu nanguwuñoo ñëw dañoo daw kon moo lay wan ne la am na lu xew mais yàgg yàgg yàgg yàgg mooy Macky Sall ne fi ak mu jóge fi mm. mooy mille milliards yi nga xamante ni génn nañ ko kenn ku nekk danga ci leeral maanaam bu fi Macky Sall jógee noo ko joxe woon xaalis boobu noonu ndax xaalis xaalisu askan wi la. da mais bu rëy. Ah am na ay yu rëy. ndax ñu naan maanaam ay marché yoo xamante ne dañ ko jox ay borom restaurant. marché ceeb yoo xamante ni gis ko jox kenn xamu leen est ce que am ko est ce que ko ana beel ana facteurs mais yooyu yëpp dañ ko war a laaj. Ah am na scandale. scandale yooyu nag dana feeñ

depuis quatre mois bind naa ay commission des euh, commission orale ak écrit mhm. yónni leen ko mais ba tey aw ma tontu muy Mansour Faye muy ki nga xamante ni mooy Ablaye Ablaye Diouf Sarr muy même ministre la Amadou Ba affaires transfert milliards yooyu ñu leen jox ñu ne jox nañ diaspora bi fukki milliards ak ñaar ak genn wàll mhm. liste yi war nañ ko am mooy ANACIM bi mhm. tey jii ñi nga xam ne loolu jox may soixante neuf milliards yi jox maanaam Macky Sall jox gorom pour mu seetlu population bi ñu ne jox nañ fukki million million ak ak ak benn xawma jox ministre bi kay au moins gorom. mais gorom a tax ñu jox gorom ndax nga xam nga gorom la man moom laa ko tuddee gorom moo tax. ndax ku na ni ministre la aussi xam na ni tey jii. Hmm. Euh, li ñu ko jox tey jii bu fekkoon si yoon la lay jaar du jaar si moom mi ngi jaar ci euh, ministre de la santé mooy social social du mbirum social la tey jii fa la ko waroon jàll ndax la tax ñu jënd ko jox ko gorom. Hmm. équité territoriale écoute territoriale boobu ñuy wax tey gisuñu ko ndax tey ji am nañu population bari boo xam ñu ngi si àll bi moo dee da nga naan a leer tey ba fi may wax yow ñi nga xamante ne mooy commission bi nga xam ne bi nga xam moom lañ dénk suivi bi hmm. ba a xam réellement est ce que bi jeex na hmm. est ce que diw gi yëpp ñëw na est ce si ñëw na ndax dafa am ay tarrement te bi mu demee si population fan ko yóbbu population dañoo fayaat transport boo xamante ni ñii cent mille lañ fay am ñu fay sax ba 2 millions pour que dem jëli ko foofu noonu boobu ba njëriñ la am. kon pour yow gestion bi. Euh, dafa am faillite wala tâtonnement gestion boo xamante ni bu lëndëm la daal. en tout cas boo xamante ni daal ambition bi président amoon xëy na lu baax la. Hmm. mais ñi ko jox ak ni ñu ko doxalee baaxul. d'accord honorable euh, au-delà de gestion avec état bi Covid 19 bi yéen euh, ëttu këru diine tamit am ngeen rôle bu am importance bi ngeen ci def temps yële dégg nañ la ngay alerter nga ne euh, ñi nga xamanteni ñom ñoo chef religieux yi dañoo war a wax ak askan wi da nga japp ne ils n'ont pas fait leur mission convenablement. waaw lolu ma waxoon mom la mom la mom la mom la confirmer moy et feebar bi tay bu yokko ni mu yokk ci réew mi. Hmm. kilifa diine ñoy responsable. ah bon oui ci naka ndax li tax mooy ñoom ñoo war a wax ak seen njaboot ndax njaboot gi dégluwun état mhm. kilifa la ñuy déglu mhm. nit nag bu la dee déglu te yow doo ko wax li nga xamante ne moom mooy tax que mu jaar foo xamante ne feebar du du yokku mhm. kooku yow yaay responsable ba pare ñaareel bi daje yi nga xamante ni moom la ñuy continuer di ko bàyyi di ko daje ngir seen bànneexu bakkan kooku tam doon ko war a arrêté aussi ndax loolu bokk na si aussi li tax feebar bi gën a tasaaroo mooy euh, da ngay daj fekk fa ay kilifa diine tey jii population bi dem nuyu ñooñu wàll leen feebar bi. Mhm. ñu dem faatu. kan mooy responsable ñoom. Mhm. nga gis ay xew yoo xamante ne ñu ngi am. amuñu benn maanaam dissipation yoo xamante ne lii ay normes yoo xamante ne yi santé joxe la. ñu mhm. respecté ko. kon yaakaar naa ni kon bokk na si ñoom ba pare nag li nga xam moom la waroon taxaw dëgg-dëgg muy sensibiliser population bi. ak jullit yi. wax dëgg yàlla defuñu ko. te Macky Sall kese mënul xeex feebar bi mënu si am ndam tant que population bi jàppale wuñ ko kilifa dinañ jàppale wuñ ko. d'accord da ci da see néew doole ko. jappone niñ leen waroon impliqué autorité yi wo leen dem seet leen ne leen feebar bi kat mo ngi fi. yéen lañ ko dënk yéen yéen ci mëna wax ak askan xam nga fi mu tàmbalee moo baaxul. ndax xam nga nit ki mëno jël ay matuwaay yu toll ni ak ay yenn responsable yi. Mhm. dem bay tëj ay juma te waxo kilifa diine yi la nga wara wax ak ñom kon départ bi mo baxul départ mo baxul mo fossé ndax dañ leen waroon a impliqué si kanam mais waru leen desal ginnaaw mais bu fekkente ni tey bu lu mel ni amee nga bàyyi leen ginnaaw néeg ba am jafe-jafe ñoom duñ la sax déglu. Mhm. ndax fi mu kilifa diine yi dem nañ ba gëm ni bi si boppam dafa am lu muy nëbbu askan wi. Mhm. loo xam ne bokkul ak li xew. donc kon da nga jàpp ne ñoom gënoon na waroon nañ gën mën a. waaw waaw waroon nañ gën a mën a seen taxawaay mais defuñu ko ndax li tax mooy. Mm. état Sénégal moo la impliqué wul 100 pour cent ci li nga xamante mooy li mu war taxawé ci mbirum feebar. d'accord alors honorable euh, dañuy dañuy tëj euh, passe boobu ah, moy euh, Covid 19 bi ñu dugaat ci politique bi parce que tout à l'heure yaa ngi ciy wax mais ma ngi lay xoj ñu xaar politique bi rek soog see wax. moy situation politique bi ak Covid 19 bi mu melni opposition mom contexte bi lañ doon xaar ngir gëna mëna noppi soupçon de deal mo am diganté opposition bu Sénégal ak gouvernement bi wala lan mo am exactement. non xam nga fumay tambalé rek man amna lo loo xamante mën naa loo deal la. mais am lo xamné du deal <clears throat> moy opposition bi. Mhm. dafa am taxaway bo xamné ne dañ ko taxaw ci kanam population bi. moy mhm. ku ne xam na ne mbas bu amee cim réew. Mhm. su Boba république lay ñëpp yi doon rôle bobu lañ taxawee won ba tax na président de la république waxoon na classe politique bi yépp recevoir len wax ak ñom pour ñu jappalé ko pour xeex fièvre bi joggé ci réew mi indu ñu ay projet loi yo xamanteni tay loi habilitation assemblée nationale yakana ni jamono ci ngor après amatu ton mu indul ñuko assemblée nationale ñu ñep ñu d'accord ci loi habilitation bi jox ko 3 mois mu def état d'urgence ak couvre-feu peuple bu fekkente yow da ngay kaasal peuple bi da fay foo xamante ne la nga leen di wax moy da ngay sensibiliser peuple mais de to casse pour que lo xamanteni da fay yak li nga xam ne moom mooy xeex bi ñu war a xeex feebar bi ndax tant que feebar bi jugul ci réew mi. ñun li ñu bëgg mun ñu ko am. tout à fait. tant que feebar bu jugul si réew mi économique réew mi dafay daanoo ba ëllëg kii jël réew mi du mën a continuer su boobaa tamit problème lay doon. kon li ñuy man mooy bu mu nii mu demee nii. ñun ñëpp ñu maase bokk benn say pour que xeex li nga xamante ni mooy feebar ba mu jóge ci réew. mais nag du tekk aussi. ngay wax ki nga xam moom nga war a waxal nga di ko wax dëgg. wax dëgg mënut a passé mooy ni ngeen ko yore baaxul. communication baaxul li ngeen joxe ni moom ngeen def leerul il faut que ngeen gën a def loo xamante ni mooy tax que population bi gën a gis seen bopp ci mbir mi. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg gi waaye nag. Mm-hmm. du caa da ngay xeex rek feebar bi ba tax nga nga croiser le bras. Mm-hmm. pour que bañ a wax ak ñi nga xam ñoom nga war a wax. beneen bi mooy am na deal. boo xam am na. deal deal. mooy am na ñu bokkoon PDS tey jii te génn PDS. ñu ngi deal ak Macky Sall. ah bon oui am nga ci preuve am naa ci preuve li ngay wax dafa garaaw de wala laa la wax am ah. ñu génn PDS ñoo xamante ni ñi ngi deal ak Macky Sall pour bokk ci gouvernement union nationale bi ñu def ah bon PDS ñaari parti la hmm. am na ñu dem hmm. mais ñi des du ñu bokk ci gouvernement boobu ne mais ñi dem pare nañ pour bokk ci gouvernement mais est-ce que ñoom bu ñuy dem hmm. yóbbaal nañ ay nit yóbbaale wuñ kenn bu leen Macky Sall jëlee seen jëmul bopp la jël mais li bëgg du ko am am ñu bokk aussi tamit ci ñeneen ñi nga xamante ne suñu coalition bi am na ñoo ñi ngi deal ak Macky Sall ngir lan ngir ko ñu jox laat leen seen marché ni yoroon xam nañ ni xew am na ñoo xamante pour ñu jox leen fay leen seen i problème yi nga xamante ni pour euh, ñu ñu saafara leen seen problème am na problème mu euh, économique xaalis jamono yi toll nii. Mm-hmm. yaa loolu mm-hmm. loo xamante ni. Mm-hmm. am na ci réew mi population bi nag ñoo si ñoo si gën a dee ñoom mooy ñi nga xamante ni tey xamuñu lu xew. ñoom ñooy defa ni rek nii lépp tout ok. mais am na lu xew loo xam ne bu ñu ko waxoon. Hmm. population ñooy génn aw yat. Hmm. dóor opposition ba ñuy bëgg de dee génn Macky Sall pale. man man man dama bëgg nga delluwaat si si deal bi ngay wax ah. parce que euh, tey boo demee ba avancé propos yu mel noonu peut-être que am na ay fondement yoo xamante ni yow moom moo lay permettre nga wax li ni mel. mani parce doo wax nii rek ngir wax. honorable man ku ma xam neexal émission bi yaakaar naa ku ma xam xam nga ni. Hmm. du ma waxantu. mooy diggante Macky Sall ak ñu nekkoon PDS am na si ay deal yoo xamante ni am na. Hmm. ngir ñu waru leen a jël ñu dugg si gouvernement ah, xam nga nit ñi. mais li ci kanam rek lu bët. kan ak xam nga xam nga hmm. du ma tudd nekk naa tudd hmm. xam nga gouvernement bi ñu doon wax naan dafa war a taxaw. xam nga ba tey taxawagul. am lu tax kon looloo tax retardé. remaniement mais am na lu tax waaw bokk na ci. waaw ah. bokk na si. tay dil yooyu noonu bokk na ci li tax est-ce buñ jëlee ñii. Hmm. ñi mu andone coalition dañu gis seen bop nan lañuy ñuy doxale am nañu and ak PS ño xamné xamna ni na ne Aminata Mbengue Ndiaye mënut a ndax Sénégal. Hmm. candidat jigen mënu fi am bop ba gagné. Hmm. koku mënut a am. xamna ni ne Aminata Mbengue mi jité poste bi manam parti socialiste poste mo tax mu and ak Macky Sall mais tay imaginer tey jii ñun faloon gouvernement ñun faloon ay ministre ci gouvernement bi jamono yi Ousmane Tanor Dieng muy ñu fi nekkoon ànd ak ñoom tey boo leen génnee dañuy ànd ak Aminata Mbengue tey ji parti socialiste am na ñoo xamante ni tey bu fekkente ni tànn nga leen hmm. tànn nga ñee bàyyi ñooñu ñoom dañuy coalition Khalifa Sall ak ñu des ci Moustapha Niass hmm. mu du loo xamante ni tey muy indi gën a indi problème hmm. ndax ñi ngay bàyyi ñooy ëpp doole ñu nga xam ñoom ngay tànn te suba socialiste di dajewaat dafay yomb ci tour ak Khalifa Sall yéen yaa ngi koy wax tamit seen biir coalition am na ñuy diil ak Macky. oui am na ñuy diil ak Macky moom am na ñuy diil ak Macky ñoo xam ne suñu coalition am na ñuy diil ak Macky. ñu mag ñi la wala. waaw ah, ñu mag ñi waaw. Hmm. yow est-ce que bokkoo ci. non sama man xam nga. Macky woowu la non man. Macky euh, proposé wu la poste. benn yoon la masa wooyee mooy bi nga xamante ni tey def naa jëf ju rafet ji ginnaaw xalif général du Murid taxaw gi ma taxawal askan wi pour dem joxe sama participation ci xeex Covid bi mu woom félicité ni ma taxawaayu républicain la man awmul lenn lu may deye Macky Sall appel téléphonique boobu. ndax man. soxlaa ko woon soxlaa lu ma Macky non xaaru mais Macky Sall woo la Khalifa Sall damay woo téléphone mais Khalifa Sall numéro woo moo ma gënal Macky Sall woo ma <laughs> bi damay woo. Hmm. moo ma gënal Macky Sall woo ma te man xalifa damay woo téléphone. waaw mais kon Macky woo la ban njëriñ la am. mais woo la proposé la benn affaire nee la. waa xam nga yow Touba nga nekk Serigne ma proposé mënu oh. loo xamante nii hmm. population joxuñu ma ko. sëñ Tuubaa def lu ma ko munul am ndax bu ni tey mbirum ndombay tànk la hmm. li ma population bi jox moo ma gën a li ma keneen di jox te soxluma palu Macky Sall bu ko poste ministre lan laay dee ministre la monsieur le ministre boo si tegal la si sëriñ bi nekk taale bi sëriñ Tuubaa moom gën a ministre Macky Sall ministre du dara aw tur la woo xamante ni tey ñi nekkul ministre sax ñoom lañ gën a jox cër ci yow mi nekk ministre te ministre Macky Sall yi nga xamante ni tey am na ñoo xamante ni tey boo leen gisee da nga leen di yërëm mi ñuy dem taxe la ñuy jël ministre Macky Sall xam nga loolu moo lay wane la ministre euh, Macky Sall hmm. amul benn caaj tey nga xool ancien ministre Ablaye Wade yi hmm. bu demee ci xew ñoom la ñuy gën a jox gëdd ñoom jox lañ jër ci ministre Macky Sall ak tel sax ndax amuñu bayra peut-être loolu crise de leadership lay doon. waaw crise de leadership mooy hmm. sama maam hmm. loolu mooy premier poste bi nga xam ne du folli ko moom laa soxla ñaari mooy population jox na ma pal goo xamante ni hmm. allah kulli alim du fi jógee mooy Cheikh Abdou Mbacké la Touba tànn mu taw Assemblée nationale di fa kaasa Serigne Touba di fa kaasa population Touba man maa njëkk njëkk sama kàddu assemblée nationale bala ñoo yëkkate kàddu sant Serigne Touba maa ko njëkk def. maa tax ba Touba fayu ndox maa tax ba nga xamante ni tey am na ay projets yoo xamante ni tey bëggoon nañ ko génn waa Touba yóbbu ko feneen maa tax ba loolu amul population la ma waral loolu yëpp def naa ko ba pare jël sama salaire may ko waa Touba man maay député bi ko ma a def. Hmm. kon jàpp naa ni. Hmm. loolu moo ma gënal foofu ndolan li ma koy defal te 2024. ki nga xam ne mooy jiite Assemblée nationale man lay doon ndax ki may àndal mooy gagné mooy mooy gagné Sénégal te bu gagné Sénégal maay nekk président Assemblée nationale nekk président Assemblée nationale koo xamante si histoire ku sant Mbacké c'est la première fois mu jiite bi ñu àndal ñun ak Pape Diop ñooy boo xam ne euh, non gouvernement tappale laa ko gisee gouvernement tappale gouvernement wor gouvernement boo xam ne dil noonu laa ko gisee mooy loo xamante ni daal fal nan ko nan ko bàyyi mu continuer bu jeexalee ñeneen ñëw continuer mais ay affaire gouvernement union nationale le gouvernement nangam nangam yooyu gëwuma ko li ma gëm daal mooy mm. kenn ku nekk fa nga nekk nekk fa la nga war a liggéeyal askan nga di ko askan d'accord si sa euh, politique carrière politique noo ko a gérer sama carrière politique moom wax nga léegi bëggoo doon ministre euh, xanaa boog bëggoo doon ministre sama carrière politique moom maa ngi koy maa ngi koy seere hmm. mooy sama base sa base Touba. Hmm. ma ngi continuer ak ñoom lépp loo xamante ni mooy soxla. Hmm. sen bëgg-bëgg ma ngi ci. luma am Touba la jëm nu mel Touba mako melal luma am tamit Touba la ko amé Touba tamit ñoma gënal lepp wa Touba ñoma fal pour ma nekk député ñom lay taxawal doo taxawal nekk député euh, Sénégal kon lool moy li nga xamanteni mom lay wax moy état bi may wax yow. muy hmm. gouvernement Macky Sall. soxla luma len dara dara dara lo xam lu joge ci ñom la luñ may doli wala luñ may jox te population bi moomuñu ko. pare wo pour dem APR jité Touba. <laughs> manam yow nak xamna ni lool mom moy <laughs> non non non dama lay laaj aw saga la ci man la nak ndax xam nga yow ni ma ni ma ñu jox la Touba nga koy coordonner lu tollu eh, ni Touba. ni ma ci rew nga jité Touba. tollu ko ci Sénégal tollu ko ci Touba. Hmm. sama ngor man muyu ma wor man duma koy wor ki dara la jo xamne ma nga tamal suñu wajur 90 la nek député Abdou Diouf jënd ko Ousmane Tanor Dieng nako yalla ko indi téméré million sëñ Baara woñu suñu kaw étage bi. Mhm. mu ubbi walis wi. pour ñu jënd ko. mu ni man kenn duma jënd bu doonto ki nga andal la toroxal ma ngi tok mais ñun duñu ñun duñu ko ñuy dënd Makassar Sall na ma milliard si campagne bi pour man ma gën dëkk bi loolu dina la ko wax tay milliards pour ma bañ a nekk ma ma campagne. élection présidentielle milliards waaw. nga tok bañ. baña campagne pour baña pour mo gagner Touba. pour mo rafler fofu waaw lan mo newoon sa réaction. sama réaction moy duma ko def sama ngor la mais man ngor la dafa am lo xam mom lay doxé moy man leadership la bo xamanteni département Mbacké man la askan wi gëm. jéem a leen si négocier ben affaire sa nga ne ko waaw on va essayer de voir monsieur le président. man amna naa milliard lu may dee milliard Macky Sall am sama milliard am sama ngor mom gën a milliard Macky Sall mu jox mako ko mu jeex. honorable émission bi jeex na. ah maa ngi leen sant leen gërëm en tout cas di am mbégte bu baax. ndax xam ne rek mooy li euh, am solo mooy gëm sa bopp gëm li nga doon. xam li nga doon. Macky Sall dafa ñafe ba fu mu àgg ma àgg fa. Mm-hmm. pourquoi pas ñu ñafe ba fa fa. bu ñu amee suñu conseil yu rafet yu baax pour réew mi ñu wax ko mais nag bu fekkente ni tey dañuy jóg pour taxaw pour bëgg dara ñu jël loolu. tey lépp loo xam ne nit da koy joxe wala nit di ko am ci réew mi mérite naa pour am ko dinaa nekk président assemblée nationale bu neexee yàlla. dinaa bokk ci gouvernement 2024 ki wax ki koy yore ma maa koy fal dinaa ànd ak waa Touba ñu fal ko dinaa continuer nekk li ma nekk muy bi Sëñ Touba dina liggéeyal Sëñ Touba ndax serviteur laa ci assemblée nationale Sëñ Touba laa fa nekkal en tout cas maa ngi leen sant bu di gërëm population bi ci wóolu gën ma wóolu ak fi nga xam ne falal ma teg di ñaan feebar bu jóge fii di jaajëfal ñi nga xamante ne tamit mooy médecins yi di leen encouragé di leen ñaan ñu bañ bàyyi seen loxo di wax waa susis ngeen bàyyi seen i garab yi te dem liggéeyi ndax population sonn na économique bi daanu na malgré que ministre économique finance ñu ngi koy féliciter di ko encourager ci taxawaay bi nga xam ne déjà am na ko ndax fi mu toll nii bari na ay réewu Afrique yoo xamante ni. Mhm. fay ñu salaire. kon ki nga xam ne moo ko yore nag il faut nga jaajëfal ko di leen aussi tamit ñu bàyyi xel population bi liñ sëmboon te doon ko wax yëpp. Mhm. liñ ci mën ñu def ko si liñ ci mënu ñu bàyyi ko ba deux mille vingt et un bi greffier yi nañ ko bàyyi ndax li nga xam moom lañ signé woon. Mhm. Aliou moo leen ko déggoon mbas mi am na. mënatuñ ko nan ko aj pour population mën a gis seen bopp mais fi mu doon ñu war a am ñoo xam ne dañuy am problème ñu war a dem pour ay kayit am na ñuy problème mm-hmm. entreprise taxawutu si réew mi depuis trois yaakaar naa ne war nañu yërëm askan wi pour que jàppale seen bopp pour que ñu aj garab bi koy ñaan en tant que seen mbokk en tant tamit koo xamante ni euh, chef religieux la en tant que population ku bokk si ñoom ñaan leen daal lu ñu mën a jàpp mooy ñu aj ko bu nee ba 2021 bis bi ñëwaat ñu mën leen si sóoraale fekk mbas mi jeex mais jamono yii ku bëgg sa réew doo teg état bi dara. d'accord gërëm nañ la sant la honorable cete pas évident nga may ñu temps bi temps bu mel nii ñu tourné ak yow émission bi gërëm nañ la si sant la lii rek la ñuy xaar si yéen bu ñu leen soxlaa ngeen ubbil ñu seeni porte ñu wax ak yéen ngeen wax askan wi alors internet yu Dakar Actu gërëm nañ leen sant leen yéen tamit si ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne si Dakar Actu TV ñu jox leen dig daje fii ak ay fan yu néew jër ngeen jëf